màggal gi euh, xam nga day pàcc boo xam ni ñun cantaakoon euh, yoon wi euh, sëriñ Béthio sunu sang ba daa daa daa fesoon ci màggal da doon jàmbaar da doon koo xam ni bu màggal weeru safar masaana teru dootul nekk sax ñi ko xam dëgg-dëgg danañ xam ni kii nekkatul ngir man ngir waajal gu muy waajal màggal gi loole nag mel na ni wàll nanu ko ndax boobaak léegi ñu ngi ci euh, nañ ko daan waajale rek lañ ko waajal euh, daaw euh, ci ñetti weer la fekk suñu toogaay bii ci daanaka ci ñaari weer ñetti weer lan ko lan ko waajal te gis ngeen na na na na mu mujjee dax defee nañ ko nan ko nan ko bëggee ñu ngi ciy sant sëriñ Touba ren fa ci toll mooy njëndum nag bi te contexte yi tax ñu soppi fu ñu daan jëndee ay nag Mali lañ daan am habitude di jëndee ay nag waaye ren euh, yëngu-yëngu ya daa tax pour plus de prudence ma ni bokki taalibe yi nañ leen dem Mauritanie ndax foofee it sëñ Béthio aado woon na di fa dem ba amoon fa ay wëlëre ci njiitul sëriñ Xaadim sama rak euh, def nañu ab mission ñoo nga fa jënd nañu ay nag ba nag yi tey fii may waxee ak yow au moment où je vous parle nag yaa ngi Medina Ndiack bi euh, ñu ngi war a ñëw Touba ci guddi gi au plus tard demain nag yi danañu nekk incha allah euh, Touba euh, xam naa bu occasion lay doon pour yéen bu ngeen ñëwee ci ci ubbiteg jumaa ji ñu yegg bu may def réception yi réception bi ñoo ngeen gisaale ko waaw loolu nag moom bu ngeen yeggee rek di ngeen ko gis ndax bëgguma fee nekk di avancer ay chiffres sunu sang ba daan na wax naan ab murit du uj bu uj bu mooy di jëf di ko wone ak di ko wax ku xam ne ni màggal gi dafa toll ak benn contexte Covid sëñ Mountakha am ndigal lu mu ci joxe hmm. mooy respecter les mesures barrières hmm. ca d'accord ku leen xam-xam nañ ci wàllu organisation hmm. yan disposition ngeen jël ci diggante jannatu ak li ko wër waaw euh, ren ay soppeeku sax dina am ndax loolu ginnaaw bu ma ci diisoo ak Serigne bas Abdou Khadre Euh, sunu kilifa gu baax googee may ña occasion di ci potoxlu di ko sant euh, ginnaaw ma ci waxtaan ak moom ren euh, rassemblement yi noonu ñu ko daan defee danañu bâche nag ci pénc bi ndax màggal gi yoor-yoor bi ren dama ko accès ci njàngum xasida mi ak alxuraan ak bernde danañu jàng ay xasaayit danañu jàng alxuraan ñu bernde loola nag tax na. Euh, danañu donc ñoom ñooy occuper foofee ñu daan occuper ci biir pénc bi ñoo ñoo koy occuper rek danañu def mbaarum siyaar moo xam ni sëriñ bi euh, defoon na ko mu nekk ci biir kër gi euh, ci mbaar moomu fa ne man pour éviter contact boobu ndekki yooyu ñu daan def habituellement nga xam ne sax ci ginnaaw gi rek lañ ko ci sax intégré ren du ñu def loolu ren ci ci danañ ko defee daal nu murite nu amuk taalu ndax ak taalube dafa sew te lu koy yàq daa gaaw euh, daf cee am mbir yoo xam ni da cee bokkoon te dama ko cee bëgg a dindi ah, waaw lépp rek nag ngir jëmale lépp kan kon euh, ren dana danañu ah, contexte boobu dana tax danañu indi ay ay ay ay modification ca nam daan doxee waaye nag du yàq dara ci bernde yi nga xam ni ñun bernde moo moom mooy nga xam ni mooy dëgg-dëggi màggal gi moom lu luñ ci daan def benn danañ ko ci def lu ko te ren euh, maa ngi leen koy wax fuñ ci tolloon daaw rek toll nañ fu ko waaw ren moom ren moom du ngeen ci ci yegg ren moom sëriñ bi dimbali nañu ba lu ñu amoon daaw rek am nañ lu ko ëpp loolu nag ak cant la moo tax ma koy wax waaw loolu it danañ ko def foofee ma la wax du doon sax ci bâche ndax bu boobaa dañuy dajaloo waaye am na mbaarum siyaar moo xam ni foofa la ñuy ne respecter distanciation sociale yi ah di siyaarente di di di di def sunu cant ak di waxtaane sëriñ moom danañ ko def. bi nag daa am question boo xam ni. Mhm. waa àdduna bi yëpp ñoo nan la ko laaj ban la gisee. Mhm. mooy gan yëg-yëg am. Mhm. keroog bala sëñ Cheikh Saliou si kàttal biir kër sëñ Saliou yëg-yëg boobu àdduna bi yëpp. ah keroog nag sant naa sëriñ Saliou keroog moom bég nañu mbégte moo xam ni séeréer lu ñu ko kudul sëriñ Tuubaa ndax foofee mooy dàtt ba. foofee mooy sunu cosaan biir kër sëriñ Saliou foofee la nu miin foofee la nu gimmee fa la nu xame lépp fa la ñu sunu bàyyi toqantal fa la nu defale lépp moo tax keroog bi ñu ko joxee wax dëgg yàlla na ma ko waxee woon rek sama xel daa dem ci sunu jàmbaar ja moom Cheikh Béthio xam ni moom moo waral lool yi cant ji lépp mooy mooy mooy borom ci la ñu eh, doxe noonee eh, jëfe ko ak ci ci mbégte nit nee li leen yéem mooy keroog ci sëkk ba biir kër sëñ Saliou takk sa digg di yenu ci bool yi ni taalibe yi duñ ko defee loolu yéem na mbokk taalibe ah loolu nag warul la yéem mbokki taalibe man loolu laa mas a dëkke ak ñoom man liggéey bi ah su euh, ku xamoon sëriñ bi mhm. amoon na fulla ju toll nii mhm. daawul yar doomam ci ci bañ a liggéeyal sëriñ bi waa ah, déedéet ñun danoo mas laxasaayu mhm. ànd ak moom lu li ñuy lu ñëpp di def moom lañ daan def ci loolu rek lan lanu yar ci lool rek lañu xam te ci loolu lañuy des Ah, waaw jërëjëf tuuti jërëjëf